xam naa yow xawaare yi ñuy dajeeg. waaw yooyu nga gën a découvrir que. macha allah par rapport ak plateforme beeg yu mel noonu daal. Mhm. mais sant yàlla bu baax a baax quoi. Mhm. ñaata cassette. waaw am naa benn album am naa it ay single yu bari. waaw ay single yu bari waaw am naa ay single def naa single setu jongoma. Mhm. moom laa clip euh, moom laa woy suma yaay ji. nga xamante ni maa koy nuyu au passage muy ajaratu fi ñaan mu baax mi saa yanda jul de ñaan. ndeysaan assurance sonam. du sama yaay du sama torodo. ah di doomi ndeyu biisu ñaan mu maam Cheikh Mbay Baay Jili Mbay yaayu xaadim ak Baay Daaro mm-hmm. kon maa ngi leen di nuyu de passage di leen wax ni déwénati leen dañ mm-hmm. ko teewee déwén yu bari incha allah bas ñun la doon laaj tey yaa ngi tëgg soirée mm-hmm. foo koy tëgg wala sa xel a ngi ci waaw comme li ma la wax léegi rek ñun ñoo ngi ci soirée yi bu yàggul def nañ sargal jigéen ñi. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen foofu géejawaay. géejawaay d' accord waaw muy ravin géejawaay ma amatul mën naa ni amatul lenn luñ fay prouvé. d' accord boîte bi ñu tuddee Saraba rek moo nekk nii Soumbédioune. Mm-hmm. joué nañ fa fa lañ defee sunu lancement single estatu jongoma. ndeysaan waaw macha allah ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi daal. ku tax Bassirou Diagne way yaay moo la papaam. waaw non loolu nag ci côté mère bi laa ko jëlee nag. ndeysaan. <laughs> waaw. <laughs> moo la wayloo xam nga paa bi moom baj géwël la moom. ndeysaan moom côté communicateur traditionnel bi. d'accord la gënoon la gënoon a suivre daal. ndeysaan moom ñoom El Hadj Ablaye Naar. Mhm. yàlla na yàlla yokk seen i leer. Mhm. waaw magi géwël yu baax yi quoi. ndeysaan grand yu baax yi. macha allah waaw ñu bàyyi la nga wax ak fans yi. waaw fans yi xanaa kontaan ci ñoom rek xam naa du ñàkk ñu def ndewanal rek. waaw nuyu leen ba pare wax ak ñoom say géer ah samay géer nag damay damay damay au passage damay nuyu. balaa ñuy ñëw ci playback bi nag. <laughs> dama koo xam ne moom mention spéciale suma xarit la. di suma jigéen. waaw e maam Ndiaye Dieng di maamam. ndeysaan alaaji Bassirou ñaan la ñuy wooyee baayam. ñu koy wax maam jaara ñaan. Mm-hmm. màggen buub jigéenu sëriñ buub mu baax mi. moom la ñuy wooyee yaayam. Mm-hmm. kon donc mënuma koo ñàkk bañ a nuyu. Mm-hmm. maam jaara mën naa ni li may woy tey yaa ko moom ah. rek ndax bu ndaree ñaaw rek dañuy dellu mbarom jóg ndeysaan parce que dañ la gis souvent fu sa yaay di dem da ngay ànd ak moom souvent bu sa yaay di way yaa ngi ci wetam sa complicité ak sa yaay waaw complicité bi de xanaa bëgg ko rek moom it mu bëgg ma lool waaw xam nga loolu moom mën naa ni ñëpp la mm-hmm. doom moom bu bëggee yaayam wàcc na ma koy mm-hmm. ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér mm-hmm. fekke lépp ci barke Seexul Xadim tubaarkàlla Basirou Diagne a ngi noonu tubaarikàlla ñu duppee ko Basirou Diagne mu mag grand sëriñ Dakar tubaarikàlla macha allah muy xale bu mën a way waaye nag di xale bu am yar di xale bu am teggin di xale boo xam ne nday may référence am ajaratu nday ndumbaan ku ko déggulet xam nga ko tubaarikàlla macha allah bëri na ci réew mi doomu aadama boo xam ne bu jugee ne nday ndumbaan kaay bëri na ci réew mi doomu aadama boo xam ne bala moo def ne ajaratu nday mbaan loo xalaat te tubaarikàlla du yàqal kenn dara te nag géwél tuddul géwél géwél ma la tudd ñun géwél yi tubaarikàlla macha allah dañoo doon ay noble waaye ba pare nag doon nitu jom doon nitu fulla doon nitu fayda soo ko weddee xoolal penda jigéen la gay njoora waaye mu ngi ci régi bi nangul Pape Maguette ëppale ko dara tubaarikàlla macha allah am jom nag am fulla am fayda paasewul nga ni tey duma doon góor déedéet am na jigéen ñu ko waxul tubaarikàlla macha allah bas réew mi ni mu xawee yëngu en tant que xale nga nekk jeune ba pare di tout tànk ban message ngay jox xale yi waaw message bi may lancé mooy comme sunu mag ñu baax ñi rek mm-hmm. ñu fi indee jàmm vraiment bay seeni waar bu baax a baax a baax a baax li ko dalee sunu mag ñu baax ñu ku ci mel ni sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul maam Alaaji Malick Si mm-hmm. eh, maam li maam Kumba Ndooy mm-hmm. maam bu Kunta Njaasaan mm-hmm. xamante ni sunu borom rek moo am fay yàlla nañu leen sunu borom delloo fayal eh, yaakaar naa ni daal duñ def lu dul ñaan jàmm rek ñaan sax ci réew mi may lancé nag appel moo xam opposition la moo xam parti au pouvoir la na ñëpp àndandoo dal te ñaan rek dam ñaan jàmm ndax te xam ne jàmm ci la lépp xaj wallaay dëgg la voilà foofu daal laay laay laay bas xale yi dañuy liggéeyi dañu war a dem jàngi métier tey Bassirou Diagne waykat la mën na dugg album mën na dugg studio def albumam mën na ca am lu ko dimbali mën na ca am source bu mu jàppalee yaayam xale yi nga xam ne dañuy dab dabal di jukk loo leen di wax. waaw yoonu ndaw moom du gaaw te tépp tëpp moom moo gën a réet. Mhm. yaakaar naa ne ku ci nekk da gëm li nga gëm rek mhm. nekk ci. doyloo suñu borom. Mhm. voilà bañ a def lu bon daal. Mhm. mooy li may wax toujours rek tout sauf sàcc. Mhm. tout sauf naan yi ay pion wala ngay def yeneen ak yeneen. voilà foofu daal laa gisee quoi. ñoom nga gisee. waaw tey boo doon jox xale message nii dëkk bi naqaree ñu war a jàppale yaay war a jàppale papa tubaarikàlla macha allah war a dem wuti ñëw jox yaay bu doon yow la tey ngay jox sa yaay da ngay fekk lu xalaal looy wax xale ci loolu. waaw mooy li may wax rek. nit ku nekk moom looy yëngu rek am ci fulla ak fayda mhm. ndax ngërëmal waajur moom mooy lépp d'abord mhm. boo liggéey li nga war a liggéey mhm. waaw comme ni ñu ko waxee bu dee bu dee ñett la boo mënta jox sa yaay ñaari joxal jox jox ko benn bi kon donc daal foofu laay waxee gars yi daal nañu gën a góorgóorlu tubaarkàlla Mara Thiam sama doom ji tubaarkàlla maa ngi toog fii waaye moom ma nekkal ci terrain bi Mara la xale bu baax la waaye xale bu am yar la xale bu am teggin la jërëjëf Pam Mendy ah tubaar tubaarkàlla macha allah xam ngeen ni fii de fii la jinne caméraman yem moom. Pam Maguette du ko nangu. benn mi réaliser du ko nangu tubaarikàlla macha allah ñu ci nuyu semu mi nga xamante ni tubaarikàlla euh, émission bu ma def rek semu moo ko arrangé. defar ko tubaarikàlla ba mu neex a gis tubaar tubaarkàlla ñu ngi koy nuyu bu baax di ko déwéniti di nuyu Maimouna Ndour Faye duñu ko tàyyi ñu ngi nuyuwaat aadama bu baax duñ ko tàyyi waaye Papis Mbaye jërëjëf Papis mu baax mi ñun télévision bi euh, Basirou Diagne ñi fi nekk dañu bokk nday waaye dañu bokk baay waaye nag dañoo xaritoo tubaarikàlla macha allah waaye ñoo bokk nday nag ndax lan parce que ñu bokk fu ñuy wute kenn ku ci nekk rek da ngay ñaan yàlla koo ko am jàmm. waaw. la kon bu nu fi nekkee bisu balonte ak jot man demaa ngi baalu ñëpp dem ci ay Aïcha sama doom dem ci Kayna Laye Star macha allah ba ci macha allah euh, pandami ba ci euh, Asia ñoom ñëpp sama ay doom lañu la kon ñu ñëw ba Basirou Diagne. indil ko tubaarikàlla li nga indi nga ne son bi ni mu tudd. ñamal ma ci mais mais mais nag maa ngi koy may waa Kaay Ba. waay Bas loolu moom foo koy ñamalaatee. waaw waaw. <laughs> mbaa sa yaay ngooy nga koy may. waaw di ko may sama yaay Ngoy Fall. Ngoy Fall chéri Ngoone ma Samba waaw Ngoone ma Lawbe Samba ak Fally Ngoone ma Lawbe Samba. ndeysaan. comme ni nga ko waxee woon rek jàmbar maa jor jokkoor leen wallaay dëgg la kumba jor jokkoor leen ki nga xamante ni surtout buur la surtout damel la mm. di nuyu nag umu saw bu baax sama rakk ji saw sa boor boro xobu garab war naa ñaanal taatu garab yàgg fi su du woon sama rakk ji saw sa bor tey du ma toog fii waxuma la ak di def direct tubaarikàlla macha allah lépp umu la bu baaxee rek tubaarkàlla. li ko mooy <laughs> bu baaxee Penda <laughs> tubaarkàlla ma ciy nuyuwaat bu baax waa jam jam waa Daaru Salaam ku mel ni sama yaay tubaarikàlla maa ngi koy nuyu bu baax yaay Fatou Ka. di nuyu père Baye Mon Ndaw ñoom tubaarkàlla bu émission yu mel nii amee dañuy seetaan bu baax a baax a baax. monsieur le maire duñ passé. laaj la ak sa lu mu nii saa yu ko gisul weetoo. lii di lii di ku nekk ko lay lii sama xol bi lem man de jëlal nga ma lii ba fajar ma dem. chéri forma nañu roofoo dañu seet sama ma chéri ñamal ma si muy ne yow ñamal ko ci bala yaay def salut salut salut

yàgg nga dégg naa li Ramatulaay Joobay sa yaay bay Adama Joob mooy sa taay man de la fala di wéy sama yaa dëgg Bawol doomi ndeyu Mara Joob yaay sa ko papa Jimbi Juuf Anta Joob doom di sagal baayam bay di ma jigéen boor ale ma jigéen boor wali balaa ko seek ki ne Juuf mooy sa yaay sa tuule wali fof ko soxna ray ko wali jege ko balaa ko ñamal ko si muy ne. neex asal sepp ah Ngoy. waaw tubaarkalla. loolu nag maa ngi koy may Sénégal yëpp. waaw tubaarkalla di ko may waa Kaay baax bu Ngoy Fall. waaw di ko may Mariane Silla mu baax mi. macha allah. ah madame Mbacke. Mhm. chéri Serigne Sam Mbacke. ndeysaan yoo xamante ni surtout sëñ Masamba Mbacke la. dëgg la sëñ Masamba Anta Thiebo. Mm. mooy maam sëñ Touba di maamam. ndeysaan koy wax ni sëñ Sam gën a yàgg gën a wér Mbacke Balla. ndeysaan waaw. soxna Oumy Guèye mu baax mi nga xam ne sa yaay day nitam di kóllëreem ak soxna ay Salim soppay maam Diarra soppay maam Diarra ñu ngi leen di ziyaarawaat bu baax a baax a baax. di wax ne tubaari kàll macha allah bas kontaan nañ de. maa gën a bég. <laughs> xam nga wax naa ko léegi Yves euh, way tuddul way lu neex la tudd ci nopp day jóge ci xol kàbb ci xol rek ñu ñu wax ju ne suukar la bu neexut nag nopp yaay njëkk a sonn déglu ba sonn ceetaan bi xaddi xare ba ca cuur cuur ngay mbay ndeysaan ku ca yóbbu buum tër ko ca lañ lay yeew sàmbay mbayaa ne samba yi mbay yaan fari ñelo gay naago géwél yëngut naa ngoy mbay damay géwél di way war a way yàlla def na may béggale ajaratu ndey nu mbaan mbay la ni woy sab ma yaay mooy sotu jëre yu ko anta nungaan ndeysaan kumba laari anta nungaan kumba dagga anta nungaan bakkar ko du lat fay ne la ndambaaw ma juuf kuli cangaay mooy sotu jëre mboy bay laay wayal su may woy di woy ba mu yàgg loolu sama xel dafay dem ci mam jaar ak ñaan alaaji basiru ñaan ay baayam yaaba xarit maam aminata xarit maam matar dumbe soxna ñaan moo rafet nu mu juddoo ajaratu màgget moom la ni wooyee yaayam màgget mu baara mu bay baayam màgget mu bay jigéenu sëriñ mu jom day doro jabbaay ji ko ca kaleer saa yoo ko déggale maam jaara ñaan yaay jigéenu sëriñ ñaan abi ñaan la ni wuy sóot baajen yaay njaay jëng la ni yaay sini jóob maawoo dagg jóob maawoo baraan yaa sin jëng caane jóob baraan saa mbay mbaroom jóob sun fi ndare ñaaw maam jaara ñaan dañuy dellu mbaroom jóob yaa dëkk mbaroom jóob waaye jëri nguune malo be samba faali nguune malo be samba kule mi ci singi ndaat géri ndaat ak geweli ndaat ko ci woo ne jëri nguune malo be samba siri Asiya Ture laay waay yàlla sëriñ saaliw bamba ne aw ma duum saaliw taxul sëriñ saaliw borom njuurul borom jàppandal waa baax dañoo booloo bokku ndey ak baay ummi gay maam jaara moo bëgg soxna jaara bu sa ba mu jeex ndey bu soo bay mbàkke la mi taamoo ngoy mbay fekkel déwén daal kon jigaamu gel waar doomi buur bu dawee ñaaw jigaamu gel waar ngoy fekkel déwén daal borom kaay baax a ngi fekkel déwén ni kaay baax lay woo Mariano Sylla baax fekkel déwén daal tubaarkàlla Mariano Sylla madame ñu ngi koy nuyu bu baax rek ngoy Fall nit ku baax kooku waaye maa maa ngi nuyu monsieur le maire dun paate di nuyu tamit maam Guèye tubaarkàlla muy nit ku baax waaye di nuyu nag axlu bi tubaarkàlla mboolem njabootu Seydina Limaamu ñu ngi leen di nuyu alayhi salaatu salaam ñu ngi leen di ziyaara di leen déwénati di ko defal nag waa Nations Unies gépp ku ci mel ne mel faala sama benn yaay la bu baax ñoo dend macha allah muy ku baax daf may suivre dafay seetaan télé bi macha allah man gisuma Nations Unies bu ma nekkee ci tele bi ku ma dul seetaan amul mënuma leen a fay yàlla laa leen di bàyyil yàlla mi am fay yàlla na leen fay waaye nag dañuy teg foofu suñu loxo dem seeti Mara tubaarikàlla xaar nag journal ndax tubaarikàlla macha allah tey fii day moo ko bas. fii day wàcc ba zéro ko defee nag. daanaka yaa ngi yoon bi penda bu baaxee <laughs> macha allah Pape Maguette <laughs> ñu ngi ñaan rek.